saana ilaahi bil munaajihaati wa abadan axnaa yadi anaati saana ilaahi bil munaajihaati wa abadan axnaa yadi anaati dalla alayya al ulamaa wal awliyaa man laa yasaalu quwwati wa awliyaa qasiidatii faaqat qasaa'ida al kiraam wali taquudu abadan xayral maraam hadiyati muxjilatun kulla malik kaana munaasihan wa axsaahu almalik maha tawajjuhan nasaara allahu liya bi laa ilaha illa allahu bismillahi arrahmani irrahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima wa nasara ala abiyati yaasi barakati qaala allahu baraka lilbaaqi bilantihaayi fi samani walbayu suntihaayi baraka lilbaaqi bilantihaayi fi samani wal bayu suntiay rabitu fi samani asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki jàkkaarloog ñun dañuy seetaan ñoo ngi santaat sunu borom subhaanahu wa taala di julliwaat ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam di feddliwaat yaakaar ci Seyxuna Ahmadul Xadim di ñaanal Serigne Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa yàlla na ko fi sunu borom gën a yàggal gën a dolli ak wéram waaye ñaanal jëmm ji tax ñu teew si ci tool bii di Cheikh Mahamadul Basir moom Cheikh yal na ko yàlla may fan wu gudd lool waa ànd ak wér-gu-yaram te nangul ko ab liggéeyam ci Serigne Touba Khadim Rasoul bokk yi tey jii la gaawu yemoo ak fukki fan ak juróom-benn ci weeru décembre ñoo ngi toogaat ci tool boo xamante ni bii mën nañ koo tudde toolu Cheikh Abdoul Khadir mbakke ginnaaw bu ñu jógee ci toolub Serigne Touba Khadim Rasoul ba nekkoon ca Hisnul Abrar mu woote woon ko le 26 novembre ñu àndoon ak seriñ siidi moom Serigne Naar Jenn ak mbobo njabootu Serigne Touba Khadim Rasoul gépp dem wuji woon ko fa tool boobee lu fay jógee ci wàllu gerte ak ngooñ mu jébbal ko Serigne Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa ñu ñëwaat nag ci tool bi nga xam ne moo nekk ci Mouré ci wetu Colobane moom it muy tool boo xam ne lépp lu ci génnee da koy jox ki fi nekkal Serigne Touba ki fi nekkal Cheikh Abdoul Khadir Mbacke ñu ñëw ci nag mu joxoon liggéey bi Serigne Fallou Touré moom Serigne Cheikh Touré moom Serigne Mor Fatou Touré moom lañ dendal nii rek moo woon mbokk yi ñëw ci liggéey bi kon damay bàyyi rek ak sëñ Fallou mu yëkkati ci ay kaddu nuyoo ak bokki taalibe yi ak ñi nga xam ne ñoom la àndaloon liggéey bi. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Cheikh Mouhamadul Fadil Silla ñu ngi lay nuyu di la masawu ci tàngoor weeg coono bi xam na ni tax nga di ko def di nuyu nag taalibe yëpp di jiite ci nuyoo bi nag Cheikh Mouhamadul Mountakha di ci teg ki fi tax a daje muy Cheikh Mouhamadul Bachir di indi nuyoo bi ba ci sama bokk yi ma àndal dale ko ci sëriñ Baye Cheikh Mbodj sëriñ Matar Touré sëriñ Mor sëriñ Cheikhouna sëriñ Fallouxuma sëriñ Abdoulahad Mbaye ak Abdoulahi Gueye ci Touba bëgg ñëpp ak mboolem teel bi yi nga xamante ne bii lépp lu jóge Serigne Touba agsi ci man fas yéene nañ ko ànd man mel ni Serigne bi li muy liggéeyal Serigne Touba te boole ma ci nangu gi dafa feeñ li ko feeñal mooy sëriñ Touba bu la nee kaay demal bayali ma ca tool ba boo xëyee ci suba gi dangay ngay warub gopp da ngay jekki geesu gis aw yet ak ëllër bu xumaak nga ne ah lii de kon gopp la naa ko jël boo demee ba ci tool bi doo yëg lu may foo geesu gis koy bay Sëriñ Tuubaa mooy doxee noonu loolu moo nu dal ci liggéey bii ki démb la ma am ku ma woo ne ma damaa dégg ngay santaane ab liggéey ma ne ko waaw la 15 mu ne ma am naa machine buy bojj de bu mën a bàcc gerte ak di ko bees ta du metti ma ne ko nu muy demee mu ne may yow day bu dee jàmbur ñee nangam la bu dee yow nag dama lay boole ci bokk yi ma ne ko na ñëw ba mu ñëwee macha allah sëriñ Fallou Ndiaye mi nga xam ne moo yore liggéey bi nekk ci daara ji itam saytu ko première saako ba mu ne lii baax na nan continuer ñu may fi dongay laxasaa yi ca daara ja ñu ñëw fi moo tax mobilisation bi ñu waroon a def ñu wàññi ko ma ne waa Madina nanu toog waa Ndulo waa Paypay waa Kër Aawo waa Jongo ma indi waa Bogo ak waa Touba muy tawféexi Serigne tubaa ji nga xamante ne bii damaa gëm ni li fi jëlee euh, sembu jële fi bojj ci gënn jëlee fi euh, dëbb kafe moo fi jëlee bàcc loxo ma fas yéene ko nag comme ren def nañu noonu gis na loolu kat am na avantage xanaa li ci sikk si mooy ngooñ mi mokk mi waaye gis naa ne mokk gi itam dana noppal fas bi koy jëriñoo kon sëriñ bii li muy def nii gëm naa ne sëriñ Touba nangu na ko te am naa ci lu ma leer kon nag sëriñ Touba moom képp ku ko liggéeyal du du ne daa daa ñeme ba daa daa am pay ñi ko mës a liggéeyal gis nañ pay ga ndax jëmmi boppam ji sax da doon liggéey jëmmi boppam ji ndax ku ne xam na ni am na ci magam mag ñi fi mujjoon te nekkoon nag moom di Moustapha Gueye sëñ Moustapha Gueye yarawaay wax na ne sëriñ bi dafa xëy tàngalal boppam lépp ataay ji def lépp jox ñu ñu naan mu ne Sidna Jibril moo fi ñëw wax ne sama borom nee na ku la liggéeyal ma jariñ ko ma bëgg a jëriñ sama ma ji moo tax ma di ma ma di ko ma ko liggéeyal. te itam nag nan góor góorlu te liggéeyal sëriñ tubaa ndax kat lu ne mën nga koo def ñu naan la liyee ko yàq ba mu des liggéeyal sëriñ Touba. <laughs> moom amul lenn loo xamante ne bii da ko yàq ndax ku fi ñëwoon tey ñu ne la. dix mille ngi ci sunna ta nga yendu ci tool yi doo ko def kon liggéey Sëriñ Tuubaa rek moo am njëriñ ndax xafistu ma siinat xanit dafatiri wala takun am xidmati bi faatiri waree su koo bàyyi kenn ko ne danga cee war di nekk guddi ak bëccëg ñun loolu lañu fas yéene ñu itam buñ demee ci kër ga sax des na leen ko gën a leeralal xam ne lu nu la sëriñ bi itam lii ma koy defal itam damaa fas yéene ànd koog moom ba bu sama doom ñëwee di ko ànd ak doomam ndax indaale naa bu ñu demee fa sëñ Fallou dana ma ko jëlal dana ma ko may téeméeri leetar ak fukk ak ñeent yu jóge ci Cheikh Mouhamadul Fadil jóge sëñ Abdou Khadir jóge sëñ Abdou Lahad bu ci nekkee benn leet laa ci jël liir ca lam ci siq ak sama baay rek mu doy sëkk seede ni lii ñuy nañu war nañu mañ war nañu wolof ba day wax ni ku ko mujjee mu réer yaa ko sàcc. <laughs> wallaahi kon sant naa leen gërëm naa leen di leen xamal nag euh, wax nañu léegi na liggéey bu wërta doog nan góorgóorlu songu addiya Daaru Salaam di wax ne am na ñoo xamante ne bii bu ne ma woon bul dem duutuma am priorité mën a dem. bu ne bu ma woote woon ñu ñu ne ñu ne ñu ne lii kat anduñu ci duma mën a dem. muy njaboot Cheikh Mor Faty Touré gépp dale ko Cheikh Mouhamadou Lamine Baara ak sëñ El Hadj Touré sama taaw baay sama kilifa te lu ne mu daj ko ci liggéey bii na ndax yëkkati na alalam def ci euh, di ci wax ak man guddeeg bëccëg waa waaj ba ba mbooloo mi jekk ma ne ko waa Madina mën nañoo toog waaw ndax bu ma ànd ak sëñ Matar dana wut waa Madina ñëpp di sant ki nga xamante ne bii moom mëtumaa wax ci moom dara muy Serigne Fallou ma ndax euh, du taalu be kese waaye conseiller technique la loolu nag kon na ngeen ma ko ñaanal may itam ngeen ñaanal ñu ah ak sëñ Fallu Galassi la ak sëñ Mortu ñoom ñëpp waxoon nañ ko leen war a wax lépp du jeex waaye ñu dimbale ma rek bu ñu demee leetar yi bu sëñ bi ñëwee ban war a wax des na ci génne lu mat fu téeméeri leetar ak fukk ak ñett yoo xamante ne bii Sëriñ Tuubaa moo ma baaxee ba mujj ci man bu ci nekk tampon la am ak waxi waxi waxi waxi waxi sëñ Abdu Xaadir waxi sëñ Abdu Lahab waxi sëñ Mamadou Fadal boole ci nag sëñ Fallu mi xam na ko ndax yàgg nañu ñun waa Madina suñ mu fàtte jaboote la loo def lu may xëyal Serigne Touba yàq nga ko. dëgg la see Ibra Fall ñetti at la def ca daara ja Serigne bi wàcce ko. mu dem këram jugut ci liggéeyal sëriñ bi mhm. mu wax suñ mu fàttee mii léppam mu wuutu ko ca daara ja suñ mu doxee ci làmmiñu boppam suñ fallu si la mi xam ne ko sa suñ mu fàtt ca daara ja quinze ans mhm. quinze ans de service nag yoo nekk ak Serigne baa ku la wuutu wërta nopplu dëgg la ba kara uh, ba uh, uh, góor googee ñëwee Daaru Marnaan suñ mur fàttali la fekk ñu dénk ko ba leen sëñ bi nee bu leen raf bu leen def dara du yàqu itam ba mu ñëwee ni sëmm dara ji jaag ñaaj jaag mbooloo ma tax suñ mur fàttali la mu ne si xamte bii day mbër waaye boo fekk nag kii wax ak ñoom waaw kii wax borom Tuubaa ku mu waxal ku mën di wax ak yow lam lam wax ak yow doy na ndax moom la la la la la la la ko tubaab bi waxoon rek sama kilifa ma wax nañ la décor nga wax nga waxal loo bëgg ñu defal la ko sëriñ na ko li ma ko ki ko am te man koo joxe defal na ma ko kon nag ñun waa Darou Salaam waa rawatina waa Madina moom laa ko laa takun am fit ma tiid wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh fal kawnu lillahi wa mal kawnu xawa ginnaaw yu rafet yu am nag ak euh, Serigne Cheikh Mbodj moom mi nga xam ne mooy jëwriñu daara donga yi mu yëkkati kàddoom ci turu mboolem donga yi ci liggéey bi nga xam ne Serigne Fallou Touré la ko ba Bachirou joxoon ngeen ñëw doon ci liggéeyal Serigne Touba. bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin rahmaani rahim maliki yawmi diini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'iin ihdina siraatal mustaqiim siraatal lasiina an'amta alayhim xayril maxduubi alayhim wala amiin yéen mbokk jullit yi jërë ngeen jëf ci turu sëñ Fàllu Touré mais suñ moom mi di sant rek kon daanaka ay taal bi rek ay dongo yi Baay Faal lañ parce nag ànd ak moom nag liggéey bii nga xam ne moom la ko sëñ bi di liggéeyloo moom rek daan koo jaral mm-hmm. sant ay bokkam yëpp ak i xaritam mm-hmm. suñu xuma meeg ba ci yow rajo beeg moom daal ñu ngi sant ñëpp mhm. te gën a góorgóorlu ci taalib gi rek ndax taalib gi rek moo am solo mhm. ndax loolu maam Anta diggante ma ak sëñ Moustapha Touré ca leetal ba woon ca euh, dëkk ba mhm. ca ca gànnaar ba mu ko laajee ne ko lu ngeen fa yéene doon dal ko ne euh, taalib rek lañ fas yéene doon maam Sëñ Tuubaa ne xanaa da ngaa dégg Seydina Jibril li mu wax fii nee na yom la xam lu fa waaye maa doon nga doon ab taalibe mhm. da nga ko réccu mhm. loolee Sëñ Tuubaa wax na loolee sëñ Mor fa sëñ Mor Faturé mhm. wax na waxanta nag moom loolee te moom moom rek la suñ Tuubaa moo soo xam ne ko jógal waxtu wi jot na mu féet ko euh, penku di taxaw kabar Sëñ Tuubaa nekk ci ginnaawam kon a yéen ñii na seen xel dal lii aaju ju faju rek la mhm. seen aaju yëppay faju nag amiin seen mbir yëpp yàlla dana ko nangu ndax liggéey sëñ bi rek mu am solo mhm. man amee saalim fa naf si la alxuraan wax mhm. lu waay jëf boppam amul kenn ko xam kuy jëf di jëfaale kenn lu waay jëf rek boppam te ku mil ku ku deful ni yéen ñii rek du mel ni yéen ñoo ngi ñaanal ñi fi teew ñëpp yàlla fa ci yéen aajo wér seeni cër commerçant yi ñoo ngi ñaanal lu ñuy jaay yàlla na ko yàlla jaral ñi xam ay tailleur la ñu lu ñuy ñaw ñi ñuy bay lu ñuy bay yàlla na ko yàlla gën a nangu ñaan si bas yàlla yàggal ko bu baax ñi yor caméra yeeg ñi yor rajo yàlla fa ci yéen aajo te barke maam Cheikh Anta borom gërëm ak gërëm yàlla doole gërëm bi yatibu mayruna kallamani man jaada bi sifaay بلا معاداة ولا جفاء له قلامي وله مدادي wa kaana lii bil afsi wa sadaadi maddu yadi li xayrihi kaada yakun min al muhaali wa ataaba li sukun ataaba lil ali saayiri kama ataaba lil baatina usturhi kama ataaba lil hakimu zaahiri kama ataaba lil baatina usturhi kama tunmi ujuriya manaafi al badi waqad taqabbala bi sukuri bi badi radiya anni man raditu an radiya anni man raditu an عنه بخير سهت متمد منه به تعت وكفاني اللعين بخير تسديد علي ويعين به تقبل بلا إقال وسلعي أخفى بلا مقال كلمني تكليم سي إخفاي كليتي حما بلا جفاي كلمني تكليم سي إخفاي كليتي حما بلا جفاي بسم الله الرحمن الرحيم فأحييناه faasat xayaati bi baqaayin laa waaye nag suñu xol dafa sedd ñu ngi lay jégalu itam nag ci déplacement bi ak yitte yi nga dagg ngir ñun alhamdulilahi rabbil alamin ah, waaye yéen ñii laay waxal waxuma ak sëñ bi lii nuy def lu weesu nañ ko xeeb fàtte ko mel ni jëfuñu dara man li ma yéene ci moom lii may def damaa bëgg di ko continuer ba bu nekkatu maam moom sama doom di ko séq ak doomam pas-pas boobu laa ci am li tax sëñ Moustapha Touré fa Cheikh Ibrahima maam yi sëñ Moustapha bu sa ñaan mi doon liggéeyee ñetti at la fa def sëñ bi ko mu dem këram lu mu am yot sëñ bi foofa daara ja mu dénk ko sëñ Moustapha Touré moom def na fa 15 ans gannaaw bi ñu fi jógee armeli Touba yii amutoon miir amutoon dara sëñ Fallou woo sëñ Moustapha Touré ni ko armel yi da xàll wi jógee Jolof da cee jaar nag yi di jaar ci kaw néew yi ma bëgg nga nga nga ko ba mu ko defee ba noppi da ko ni nii nga ko wëralee yàlla na sa jëf wëree noonu jaam ñi bis ci dara wécciwut loolu carrière bii nekk na fi di di toj ba ba ba ba ba ba ba baaraamam tëccu loolu mosu caa jóge te itam nag xalfun ñu bari dañ koy firee ku fa ne te te na nga fa nekk du noona déedéet ku fa nekk rek xalfun nga ndax jamu taksir la illaa man taaba mooy waral ñu lay sikk nga ñàkk caa nekk na nga ca war a nekkee kon moom mii damaa bëgg ngeen xam ni ab yenam diis na ta wax dëgg yàlla man am naa ci kese ci ni moo ci war a jàppee ngeen xam ne daal ñun defalaguñ ko dara lu ci des nag suñ fa te teyel ma man li tax ñu war a góorgóorlu ñun ñoom sëriñ dañuy wax ni xafistu maas yéen xam ne dafaatiri loolu mbiram sëñ bi wala takun xam xidmati nag bi faatiri mooy bu ko dagg mukk lii lu ma jukki la ci téeméeri leetar ak fanweer yu Seex Abdou Lahad sëñ Fallu sëñ Abdou Khadir bindu sëñ Cheikh Touré sama baay bii mhm. Cheikh Abdou Lahad la la jóge la ci mujj mooy mbaxana moom mii maa ko jox sàkkul la ci dara bañ laa féete kaw fii ak fële sëñ Abdou wax ko ko mhm. yow Alhaaj Cheikh Touré maa dina maa ngi lay nuyu lu bari lool di la gërëm lool di la yëgal ni sama sama nag tegu ci dara ko ne sama sedd na am ko ne sama xol la ma ne ko déedéet sama lépp la mhm. waaw góor sama sedd na rek ci sa lépp yàlla na yàlla ak sayxul xadim mi tax ngay jëf mi tax ngay jëf foofu laa bëgg a jëm ak yéen yéwénal sa lépp saahiran wa baatinan bu ma Seex Abdu Lahat ko bind bii Seex Abdu Lahat ko bind bii Sëñ Abdu ko bind yow Alaaji Seex nuyu naa la lu bari sant naa la gërëm naa la gis naa sa bataaxel dégg naa li nga wax lépp jàpp naa ko démb jàpp ko tey di ko jàpp ba faaw ba faaw jooy nag mooy sama digg ak sëñ bi. waaw jot naa itam hadiya ji kon li nu war dafa bari li sëñ Fallou wax sëñ bi nag ñu mëmoo koo génn ndax kon ñu bari dañ koy weddi te ku weddi alko tamit dem sëñ Fallou. la ak nangam la tax mu ak si sama la mooy wan man na doon maa jëfloo. loolu moo accélé lettre yi ci sama sama kaw waaye sëriñ bi déema dimbali ngir yàlla ak jëmmi sëriñ Tuubaa ak jëmmi Seex Abdu Xaadir Mbàkke sa yitte ju mën di ko dégg ma du ma du ma du ma nett li liñ séq du jëf di ca yaakaar dara man damaa jàpp ni jëf bëgg ñu fay la sax erreur la ñun dañ cee war a ne rek ndax lii jom li kenn ku ci nekk ci yéen bu ñu ko joxoon doon joxe 10 000 du fi fanaan te ñun fomm ku ngay mer yàlla xam na ko man leen liggéey bu nangoo coono mooy añ kon Mbàkke yàlla na la sa borom musal ci catang dog ak wéradi ak gàtt fan nangu la si digg ak Serigne Touba ndax kat bay lekk ko ne mën na ko waaye jaju ba kat suñ bànc jàng ak julli bay joxe ngir yónneen bi te addina moom wërsëg boo xasee xam sa kanay kan waaye bëgg gi Serigne Touba ak mokk ga ak fonk say kilifa man ba ma ko xamee Cheikh Mamadou Bassir yàgg na xamee ci moom fonk kilifa yàgg na lii ñuy gis ni muy porte parole yii nii jamono si Elaj Baar rek la am na lu ko jiitu nag yàlla na si jëf nangu na ngeen ko ñaanal ñun daal nañuy jëf mooy li nu warta bañ a siinu dara ndax kat ak pay bis pin rek la am njëriñ dafa am sa am naar bu ñëw ci sëñ mi ne ko inna haulaai yuhibuuna al aajilata ñii de ñoom am nañu yàkkamti sëñ Tuubaa moom dara daw ko bett man mun kan man kaan yuridul aajilata ajjalnaa lahu suñu <laughs> ne ko ko yàkkamti ñu fay la fii bëgguma na ngeen yàkkamti bu leen yàkkamti ndax suñ moom bu la liggéey bi laa xamee ne bu ma ko nangulee coono yi wàññeeku na bu baax lu mu nangu rek da koy xam ci sa bopp te ñi may àndal ñu dar ma xam na nangu kon na sëñ mi ñaanal yow nag la la ma dégg kilifa waxoon ko kilifa lu garaaw la waaye sama digga moom yegg na foofu lu ko nar a dal garanti naa na agsi ci man ndax euh, cofeel gi ma ëmbal bu bu bu bu bu màgg suñu xel lu nit ñi bari bari du ma romb mukk te tegu ma loxo tooñ ma jàll te ku ne xam ne du du koy fo du koy fo waaye fu ma romb rek tooñ ma jàll sant nag sant nañ sant a sant sëñ Moustapha sant nañ sant nañ sëñ Moustapha sant nañ bu baax ndax muy kàddu yi cant ak yooyu ngërëm ci taxawaay bu rafet bii nga xam ne defati ngeen ko te yàgg koo def lool ndax lu ëpp fukki at wala fukki at ak ñeent sax moom sëñ Fallou mii moo daa def liggéey bii te di ko defee nag pësteef ak yitte ju kawe ma di ko seereel nag Serigne Touba moom sëñ Fallou mu di ko seereel sëñ Touba def na ko lu mat fukki at te mosuma cee ñëw waaye ñàkk ñëw ga day yokkut ci pësteefam dara wàññiwu ca dara kon day wane nag ne sëñ Touba rek lay xool ci loola kon ñi ngi lay ñaanal bu baax ci barkeb Serigne Touba moom mi nga xam ne moo am ak pay te jëf jëpp jëmmam dong tax yal na leen ko yàlla nangul bu baax képp ku fi ñëwoon itam jëpp aaja joo xam ne fas nga ko ci yal na la ko ci suñu borom defal ci barkeb Serigne Touba. Serigne Fallou nee na mi ngi lay dolleewaat ak cant cant gi nag da koy soppi ak ñaan ak séeréel ko Serigne Touba. ndax sa digg ak moom kat mi ngi bëgg a yàgg lool. waaye lépp lu la war ci jëmmam moom mii. def nga ko ba def ca sax lu la warut. kon nag. la Serigne Touba waxoon Serigne Modou Moussa ne ko. la Serigne Touba waxoon Serigne Modou Moussa ne ko. Eh, taalibe ay mbuus lañ. taalibe yi ay mbuus lañ. wulli képp laa leen ci def loo. waaye lii dem ci mbuus mbuus gi nag maa ko ci defal sama bopp. mas naa wax genn kilifa mas naa wax genn kilifa ne ko. Eh, na nga xam ne def ak dindi. na nga xam ne def ak dindi. Serigne Touba yóbbaale wu ko da koo teel boppam. Serigne ko da koo teel boppam. da koo teel boppam. batalewu ko it ak kenn. kon liggéey bii ngeen fi doon def. ku ci am pas-pas rek. na nga xam ne sëñ Touba dana la ko fay. te rafet nañ ci njort lool. wala sax am nañ ci yàqin ndax xam nañ ne Pastef rek moo leen tax a jóg jëmmi sëñ Touba rek moo leen tax a moom mi leen tax a jóg nag kenn mësu koo defal lu baax te fayewu la lu ko gën wala lu ko ëpp ndax hal jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mislaha eh, waaye nag man jaa bil hasanati falahu asru amsaliha ndax yàlla kat moom daa amut lu bon ndax moo tax boo ko defee lu bon. benn ba nga ko defoon ci bon rek la lay delloo. boo defee benn bu baax nag. mu tegal la ci fukk fay la ko. kon nag noo ngi santaat bu baax. di ñaan ci barkeb sëriñ bi. nu yàgg koo teewe. te jaajë ci ak ngërëmul sëñ Tuubaa. lu ci waay jëf lu néew néew. bu ne misxaala sarati nitam. yàlla na ko sëñ Tuubaa ful te fay ko. moom mi nga xam ne. dara umpewut ci moom te lu ko nit defal it gis na ko rawatina lu jëm ci pas-pas te ngeen xam ne istara minal muminina anfusahum wa amwaalahum bi anna lahumul janna kon nag tuur deret moom lislaam andeetu ko waaye Cheikh Abdoul Ahad Mbacke da daa wax ne ba jaasi noppee am ci lislaam. ba jaasi noppee am ci lislaam. foofu lislaam àggati rek. foofu lislaam àggati teraanga moo ko fa àggale. ñoo xam ne saxaaba yi. ñu xam ne saxaaba yi. Eh, yàlla sunu borom daa jënd seen jëmm yi. yàlla sunu borom daa jënd seen jëmm yi. ak bakkan yi. ak seen alal yi. ak seen alal yi. ngir faye leen ko ëllëg. ngir faye leen ko ëllëg. kon nag. kon nag. Serigne Touba. Serigne eh, ak alal yi la laaj. te di ko delloo ci yàlla. te di ko delloo ci yàlla. kon. na ngeen rafet njort bu baax. te xam ne mën a joxe ci alal. te xam ne kat nit lu mu mën a joxe ci alal. ci wërsëgam ci wërsëgam. Eh, li muy ñàq ci doole moo ko gën a barkeel. li muy ñàq ci doole boppam moo ko gën a barkeel. ndax lee kat wërsëg la rek wala yàlla jox. te mën na laa jox xolub nga mën koo joxe. waaye li nga ñàq ci sa jëmm moom. moo ëpp doole. kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm bu fi benn doomu gerte génnutoon itam te Pastef yëkkati leen rek sëñ Tuubaa mën na cee faj sunuy aajo jërë ngeen jëf.